Sëriñ Habib xam naa ni man damaa bëgg a barkeelu tuuti rek. waaw ndax dama fi toog ci teewaayu suma kilifa suma mag te ñëpp xam ko muy Masata Ndiaye. di taaw ci suñu papa El Hadj Ala Ndiaye. ñun lépp lu ñuy def ak lépp lu ñuy wax rek ci ndigalam lañ ko defee. dëgg bi may ñëw waxtaan naak moom mu jox ma ndigal. Mhm. ni ma boo demee nga xool loo def rek ci turu famille bi d'accord nañ ci. dëgg ñun nag. dañoo barkeeloo woon bi ñuy doog a commencé jumaa ji deux cent cinquante millions. Mhm. ni ma ko waxee woon ñu dellu jox xalifa bi cinquante millions muy trois cent millions. Mhm. yow nga sasoon ma cent millions. ca Tiwaawan. ma joxe woon ci cinquante millions le quinze mai passé. Mhm. muy trois cent cinquante millions. waaw tey. dama indiwaat beneen cinquante millions dolli ko ci muy quatre cent millions. Mhm. mooy yow li nga ma sasoon. waaw man nag ci li ma fi dajale tey ma barkeelu ci cent millions muy cinq cent millions. Mhm. pour famille El Hadj Alé Ndiaye. Mhm. su ma génn léegi waaw dinaa leen jox chèque cinquante millions bi. Mhm. yeneen ñi bu ma eggee lundi tam dinaa leen ko jox nga xam ne ñun suñu barkeelu. muy sens ci ndigalu Massata Ndiaye. Mhm. joxe nañ. million mhm. cent millions. benn cinquante millions bi nag. dama bëgg yàlla defal ko dawal bu yiw. sama waajur laa ko joxeel muy El Hadj Alé Ndiaye ma nekk ca Barzax. yàlla na ko yàlla dawalal. amiin muy addiyaam ci Cheikh Seydil Hadji Malick. loolu daal mooy li ñu defagum. bu jumaa ji pareegul nag. ñun duñu pare. dëgg la ndax ñun moom ñëpp xam nañ ni ay taalibe lañ mhm. boole ci ay soldaaru Seydi El Hadji Malick la dëgg la man maa taxaw ni man bugguma nekk président de la république dëgg la man bugguma nekk ministre mhm. bugguma nekk député bugguma sax nekk chef de quartier dëgg la man lenn rek laa bëgg a nekk te yàlla na ma ko yàlla def mhm. mooy taalibe Cheikh Seydi El Hadji